gannaaw ñaari ati jàng élèves sous-officiers yi jot nañu seeni lijaasa ñu toll ci fanweer ndaw mari nationale yi nee nañu pare nañu fësal li ñu jàng di maintenance seen devise di am ndam ci géej gi jarle ko ci xam-xam école marine nationale ki ko jiite di capitaine de vaisseau Abdou Salam gannaaw ba mu jàngale jàngalekatu école bi Delusina ci tagat gi ci ay ndaw yi ci ñaari am fii ci école bi jot formation militaire di marin technique ci spécialité yii di manœuvrier technicien commando ba mu excellence chef d'état-major général des armées Mbaye wax na yi